dafa mel ni à un moment donné nekkatul affaire privée te ñi ñuy wooyee les intellectuels il faut qu'ils arrêtent de nous tampaniser en fait parce que fii kenn doful te ñëpp dañoo nite mbir mi dafa dépassé privé parce que pour man waxuma sax mbirum aji Sarr côté viol parce que jigéen ñi je pense que seen kàddu jugagul ndax supposons supposons viole amul naka nañ nar a xoolee jigéen yi nga xamante ne saasu ne ak suñu doom yi nga xamante ne deux ans trois ans pédophile yaa nga fi di leen di leen def ay attouchement di leen violer lii bu nekkee dafa nekk benn coup d'état ñu jël jigéen teg ko ci kanam comme la naan góor ñi bu ñu gisee jigéen am amati seen sago ba bëgg a ki nga xamante ne mooy monsieur Sonko loolu askan bi duñ ko seetaan ma bëgg a waxaat leneen tamit avant ñuy avancer ci discours bi démocratie nañ wax kon chacun est libre de donner son avis maanaam man tey euh, faraluma nekkuma parti au pouvoir nekkuma Pastef waaye sama soutien dama koy jox monsieur Ousmane Sonko pourquoi parce que dafa am loo xamante ne nañ waxante dëgg ñi ñi ñi koy juut juut euh, baa baaraamu tuuma mais ils ne sont pas blancs comme neige ñun voté wuñu pour kii dem massage wala kiy def adultère et cetera mais attends Sénégal ñun république nekk ñu république islamique je suis nañ bàyyi suñu hypocrisie bi boo ma weddee na nga dugg femme chic xool chaque jour jigéen jooy te infidélité jëkkëram chaque jour jëkkër yi jooy ci seen infidélité jabar kon il faut que qu'ils arrêtent en fait de vouloir euh, euh, diaboliser monsieur Sonko pourquoi parce qu'il est parti se faire masser léegi nag ku nekk am nga droit ne man fooge ma ko woon fii li mu doon woote et cetera loolu d'accord naa mais à un moment donné faut pas qu'on nous prenne pour des pour des chiens en fait voilà excusez-moi xam ngeen lu tax nañ waxante dëgg bon je vais diminuer un peu xam ngeen lu tax tey maleen leen di wax lii que dafa wax a nekk lu am importance on ne va pas voter pour Ousmane Sonko parce qu'il est parti dans un salon de massage libre à lui de faire ce qu'il veut s'il trompe sa femme eh ben ce sera à ces dames de régler ce compte avec lui ñun suñu yoon nekku ci suñu yoon nekku ci chaque jour nga dégg ministre bu dem takk jabar ñii takk-takk kaw ñii takk-takk suuf xam nañ li xew ci dëkk bi kon faut pas nous prendre pour des cons man li tax may gën a révolté wu tey mooy euh, pourquoi le président il reste silencieux pourquoi lan moo tax est-ce que mépris la est-ce que est-ce que nappaate la est-ce que lan la te monsieur Sall euh, avec tout le respect que je vous dois mais même bu nekkoon benn nit mooy jooy sa wareef moo doon nga wàcc man dama foone woon que présidence ñoo am problème de communication mais à la longue su may xool say discours yi fan yi ngay génn je comprends quoi doo génn lu bari ngay def noppi man premier mandat Macky Sall temps fekkee ma ci boole man Macky Sall laa voteel deuxième mandat bi j'étais en France on n'a même pas pu s'inscrire parce que carte yi ñoom dañoo jël ba am nit yi leen doy ñu bloqué ko loolu je pense que kenn du ma bàyyi ma fen kon à moment donné il faut qu'ils arrêtent parce que nous comme ni ma ko doon wax dama bëgg sénégalais yeewu bu ñuy voteel nit mu nekk euh, tout simplement parce que dafa dafa dafa am euh, euh, ñu voteel mobi maanaam programme il faut que ñun sénégalais ñu voteel nit parce que dafa am programme muy benn deuxième chose tout le temps problème wu loi dañ koy am mooy monsieur Sall bi ma doon yëg dafa newoon que bu defee deux mandats day bàyyi waaye léegi ñu ngi bëgg indi affaire loi loi boo xamante ne ça a été fait par des hommes pour des hommes entre parenthèse ma defaale benn coucou pour euh, code code de code de code de la famille nga xamante ne jigéen ñi gisuñ ci seen bopp bref pour des sama sujet euh, muy loi boo xamante ne dafa yàgg ay 1950 nañ lay wax ay 1960 fekk na léegi dëkk bi dox na dëkk bi changé na kon il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons mun nañu nax benn yoon waaye kenn du ñu nax ñaari yoon kon sénégalais yi damaa bëgg balaa may yeggali sama wax ngeen yeewu nekk nit ñaata sénégalais ñoo fi dee man j'ai été sur le terrain li may wax tey dama nekk sur le terrain nekkuma ci internet bi di encourager nit ki naan ko bravo merci no nekk naa ci terrain bi dem ba Saint-Louis dem ba Mbour def fa événement ñu bloqué woon ma préfet bi dafa bañoon préfet Mbour bi que duma ko def dama yéeg wàcc woote samay nit jàppale ma ma mën ko def woo jeunesse bi les images sont là dinaa leen ko wan pour dire non à l'immigration clandestine j'ai le terrain pour ma baat ci littoral bi lan nañ daan wax sénégalais boo toogee wàcc wala buñ la jàppee kenn du la seet si d'accord waaye au moins du ma bokk ci ñi nga xamante ne dañuy noppi parce que nit benn yoon ngay dee tey nekk sama kër taal sama clim dugg sama oto moo gën a yomb ci man te dafa am leneen tamit loo xam ne maa ngi koy dégg mooy ñu ne la waaw euh, da ngay demander audience da ngay kaas Macky Sall audience non Macky moomul ministère yi nous on est des sénégalais bu ñu soxlaa dem audience dañuy demander audience parce qu'on a des projet yoo xam ne yaa ngi may dégg comme si tous les autres sénégalais dañu koy bind ñu koy financer kon ça veut pas dire que nit dafa nekk opposition wala parti au pouvoir que dañ ko war a xeex du ko sànni xeer ancien président dinañ ko dégg ancien ministre dinañ ko dégg waaye ancienne naak sénégalaise kenn du ko dégg ci àddina kon pays bi ñu ñoo ko moom vous parlez de paix ñun du ñu woote violence te dañuy ñaawlu li nga xamante ne xew na fan yii paase waaye yuuxu boo gis am na lu ko waral sëgëm nit ñaa ngi dee mais attends ministre de l'intérieur barki dee moo Ndiaye monsieur John euh, monsieur euh, euh, Antoine Félix mais attends monsieur John ma man j'ai rien contre cet homme mais hier mais quelle agressivité dafa dafa dafa dafa il était limite sur le point de nous donner des claques Idrissa Seck même si son discours dafa xaw a nekk benn benn benn discours de politicien mais au moins il a mis les formes mais moi j'étais choquée hier d'entendre le le le de regarder euh, monsieur Antoine à la télé fas kanam gi parler comme si day dem guerre oh léegi nag yéen boo leen nangoo lii dëkk bu tàkk ngeen di wax sàcc Auchan ngeen di wax chaque jour tubaab yi ñëw piller suñu géej gi gis ngeen pillage bi xew démb dafa nekk lu ndaw te ñi nga xamante ne ñooy pied suuf si di sàcc milliards yi ñoo ñooñu dañ leen gisul xale yi nañ gis te tamit dama koy condamné waxuma que dama leen dama ànd ak ñoom parce que tamit man Auchan ay yëfu tubaab la yëfu sénégalais d'accord ma ci parce que suñu parent tubaab suñu parent sénégalais yaa ngi Europe di daan doole di liggéey ak tubaab yi sénégalais de l'extérieur yi engagé am jom bëgg seen réew dañ waxante dëgg ñaata artiste ñoo fi nekk tey mais faut arrêter avec l'histoire de Samba Mbayaan mais jug leen wane seen bopp mais jug leen wane seen bopp waxuma leen ngeen faral sonk wala Macky mais sénégalais yiy dee suñu xale yi nekk ci mbedd mi ngeen ne patt pattaaral événement bu amee yéenay njëkk jug sénégalais jàppale leen mais faut arrêter à un moment donné fu arrêter lii bu doon pérétu esclavage yéenay tax ñuy noot bu ñu nootee yéen a tax fii ku noppi da nga nekk complice démocratie la faral leen Macky Sall d'accord vous êtes libre et on respecte kenn amul droit saaga kenn parce que dafa faral Macky waaye nag ngeen may nit ñi seen jàmm bu ñuy soutenir Ousmane Sonko te d'accord ma bu ñuy wax naan oui vous êtes des femmes nanani nanana mais c'est révolu tout les femmes ne sont plus di air boo xamante ne dañuy toog def seen maquillage def seen taloo cokki cokki def groupe def seen muso di tàccu président Sall eh, eh, wiiw loolu suñu ay jamonoy maam lañu aujourd'hui les femmes vont prendre la parole nos enfants sont en train de mourir man doomu gendarme la sama papa tey dafa jug dem armée sama papa dafa xeex pour le Sénégal il servi le président Diouf sama papa dafa liggéey ak président Diouf pale la jëlee retraitam sama enfance yëpp maag pale ñoo jàkkaarloo nii suñu kër ñi may seetaan dinañ ci xam musuma ci wax parce que gawuma loolu gëwma loolu mais j'ai eu un père digne bi ñu màggee ma koy laaj ne ko papa am na ñoo xamante ne ci ab Ablaye wadd nekk nañ ay garde corps ñëw ñi am seen ay kër ay seen ay château ay milliards papa lu tax amoo kër boo xam ne Almadies la nekk comme ñoom waaye il m'a fait savoir que ñaqam la dundee te ñaqam may ko ko woon c'est un homme très noble waaye tey alhamdulilah parce que bi mu retraité yàgg rek te mosoo dégg dara kon macha allah doomu gendarme mooy wax ak yéen tey dama bëgg a woo sama papa colonel yi papa généraux yi papa major yi man ti camp laa juddoo conk gii laa màggee ak caserne Faidherbe lan mooy ndayu ay policiers jël dem ay di tirer ay manifestants il faut pas qu'on qu'on qu'on qu'on qu'on fabrique des monstres je suis désolée man je suis outrée par tout ce qui se passe mais mais policier naka nga mënee jël wala gendarme yow pistolet nga mel ni ku nekk euh, guerre seen peuple kenn waxu ci kenn waxu ci nervi yi ngeen jël di leen fay dix mille quinze mille ñuy terroriser population bi bés bu population bi jógee ba révolté di ngeen xam ne lépp dëgg la di ngeen xam ne nguur jaru ko fii li fi xew ma barke dem moo njaay mu ngi fi waaye lii yëpp man en âme et conscience damay woote pour jàmm ak salaam parce que suñu liggéey nañu am suñu ay doom nañu am xale yi jàngiwuñu ñun liggéeyuñu ñu ngi nii toog ci kër yi di xoole waaye nag jàmm ji dafa war a nekk ci ñaari parti yi mooy ngeen may nit ñi seen jàmm ñu dugg ngeen fi xeex comme li ma doon wax sànq mbirum mbënd bi président jugul ba tey jaale nit ñi tweet la bind il n'a même ko reconnu ses morts et après tey ñun jug nañ kaas ñëpp ne patt ci internet bi kenn waxu ci waaye luy raam ci ñag bi lay ñëw ci eh, nag ñag bi la jëm gis nga ku toog seetaan tamit ay bi buy ñëw dina dal sa kaw bopp kon woote leen jàmm woote salaam te beneen chose aussi euh, chef religieux yi euh, damaa bëgg ngeen xoolaat seen bopp parce que man xool naa fi ay jamono chef religieux yi bu ñuy jug di wax ci politique ñëpp di bind ñëpp di bind ñàkk teggin bu ñu xasee waa Tiwaawan xas waa Tuubaa xas waa waa laayeen xas ne comme si seen papa yeeg seen yaay yi ah, ñoo gën a nekk nitu diine yu mag yi ngeen baal ma ci kàddu gi ah man suñu jamono ji xale yu ñàkk teggin laa gis moo tax lu ñuy dal duñ ko xam parce que mbir bu bon buy ñëw ñëpp lay dal ku nekk tey di tweeté ku nekk boo amee sa moment di bind xas nit ki saaga nit ki et cetera après léegi nag tey ngeen bëgg jàmm di bëgg a woo chef religieux yi mais suba bu chef religieux yi nar a jug waxti politique kon il faut ngeen may leen loolu parce que nag nit doo ko yaakaar ba pare yëpp ko lii dama dafa nekkoon wax joo xam ne dama ko dencoon parce que dafa nekkoon loo xamante ni daf ma doon xotte tout le temps démocratie dafa nekk lu baax ci dëkk. seen TV ni ñu coupé seen signal ma man wal fajri ni ñu coupé seen signal neexuma TFM bi ñu taal ak RFM neexuma. mais ñi ko moom am nañ droit wax comme bañ wax il faut ñu nangul leen loolu tant que nekkuñu dëkk boo xam ne dañuy woote démocratie bu mu nekk démocratie bu ngarale na nekk démocratie boo xam ne pour ñëpp la tey ndax neexu la bul seetaan mais rombal en revanche bu nekkee danga am sa avis mais wax ko nañ waxante dëgg lii dafa ñaaw man nag woote 8 mars bi résistance bi ñu wootee man danaa ca dem danaa dugg dox doxantu woote jàmm woote salaam ndax ñun jigéenu Sénégal ñoo war a jug takku nañ leen jug takku génn ci internet bi nañ leen jug takku ngir woote jàmm nag laa wax woote jàmm woote salaam nañ waxante dëgg dafa am benn bés mu am benn waay boo xamante ni dafa romb gis ñaari waay di xeex ñu ne ko waa sëñ bi doo leen àtte ngeen baal ma àq ci vraiment mouchoir bi Euh, waa ji ne moom ay xeexu xale yoonam new ci ba ma xale yi romb dem yoonam bi mu demee ubbi butikam benn doom bu sob la am xale bi ne trip dégg coowu xeex bi rek daw buñ ko ba ma xëy xale bi doomam bee njëkk a dee loolu dafa nekk ay jàngat yoo xam ne olof yi dañ koy dañ koy dañ koy yeddaatee mooy maanaam ay mu vaut fay coow li balaa coow li di dem foo xamante ne yow doo ko xaar nañ waxante dëgg ba pare man man du ma du ma du ma du ma juriste sax waaye garde à vue ñaata ñaata temps la bu nekkee am naa fi benn juriste peut-être j'aurais bien aimé jël ko Papa Thier Papa sama papa maa ngi nuyu bu baax a baax maa ngi lay nuyu di la sant euh, maa ngi lay euh, bu nekkee am naa fi benn juriste parce que euh, Idrissa kii nu mu tuddati Sonko ñaata temps nañ ko war a téye kon ça veut dire que lundi bu ñu ko bëggee yëkkatiwaat immunité parlementaire am ça veut dire même pas le droit de retenir Sonko après ñuy wax waxu privé c'est pas privé c'est public bëgg naa xam na Adji Sarr wax na dëgg bëgg naa xam na Sonko def na bu defee na wuy ju yoon comme ñépp ñi nga xamante ne ñu def ay ñaaw ñaawteef waaye ay bu deful ay bu deful bu deful ma xam ni dañoo nekk ci nguur boo xamante ne bugguñu benn opposant te yenn nii nekkul stratégie de jël Idrissa Seck teg sa wet jël ñeneen ñi teg seen wet jël ñëpp teg sa wet nga yow yaa gën a muus waaw muus nga et man je félicite quand même esprit bi nga am macha allah vous êtes très intelligent waaye intelligence boobu nañ ko jël xool askan wi wala ñuy jël di defar ay terre yoo xamante ne demut bien vrai que man bëgg naa développement euh, ci côté euh, wàllum euh, dem ak dikk parce que dafa nekk loo xamante ne infrastructure dafa nekk lu baax ci dëkk waaye pendant ce temps ñu jàngal xale yi ñu am formation professionnelle ñaata nit ñoo fi am ay diplôme te mënuñu sax liggéey mënuñu dara man mii sax amul diplôme yu ñu am maa leen di jàngal parce que yàgg naa liggéey plus de presque 15 ans ma am ko ci ci ti ci ci ci kiiwu professionnel nañ waxante dëgg formation professionnelle lu xale yi nañ war a lijjanti suuf si nga xamante ne da ngeen koy jël di ko tabax di dëkk ku nekk ci nguur un mois yor ay milliards di ko pasar pasare ci dëkk bi bañ ko ci wax yéen xam lu tax bëgg leen wàcc nguur gi yéen a xam lu tax bëgg leen wàcc di wut ay ner yi xoxotal nit ñi gis nga fii benn yoon nañuy dee te toog suñu kër noppi di dee wàcc dee mbedd bi moo ko gën dafa am une fois ma am ku may waxtaanal ci màggalu Tuubaa yi ma ne ko man gel baal ma ma ne ko man dama war a dem màggali mu ne ma corona bii ma ne ko munoo yaakaar nit ba pare ragal ma ne ko tey ma dem màggal Touba corona moo ma gën a ma toog fii dakaar corona corona gàcce parce que mënuma woote taalibe gi ma doon di ragal ay corona bien vrai que damay moytu waaye benn instant c'est pour vous dire que la foi est au-dessus de tout dem nañ ci jàmm ak salaam ñu toog ay weer kenn déggul pepp kaa te ñëpp ubbi woon seen seen nopp di xaar nit ñi. daanu comme ay mouche c'est juste pour vous dire que yàlla kese mooy tànn waaye nag sabablu dafa baax ci doomu aadama te man fii Sénégal gis bu ma fi sa sa sabablu hypocrisie laa fi gis ku fi gën a toog mën a juger wax ko ba pare ngeen bañ nit ñi juger am na une fois ma toog dégg ku ne waa euh, xaw ma lan euh, on peut pas être juge mais non c'est pas vrai fii équipe nationale buy football tout le monde est fii problème bu amee ñëpp ay avocat lañ ak ay juge kon monsieur Sonko n'est pas n'importe qui monsieur Sonko n'est pas n'importe qui bien vrai que nag coow li ci mbirum Adji Sarr la jóge sénégalais yi génn mer waaye c'est pas que les gens de Pastef c'est ay sympathisants am ñoo fees ci mbedd mi ay xale yoo xamante ne tamit dañoo inconscient xiif di leen rey yaa ngi may dégg ñuy gis ay immeuble immeuble ci dëkk bi gisuñu xaalis xale yoo xamante ne seen ay mag seen ay rak dañoo dee ci mënd bi xale yoo xamante ni dañoo toog ah Euh, gis ay seen ay seen ay frère di dem ci gaal gi nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg ñun loolu yëpp neexuñu waaye yàgg nañ fi gis fii muy Sénégal di France gilets jaunes yi dugg nañ ci ay boutique Louis Vuitton ay yu ne toj fa yàq fa sàcc seen bagage yëpp mett na ci xol waaye comme li ñuy wax njëkkee ko fi te duñ ko mujjee dañ waxante dëgg waxuma nag ni loolu dafa baax waaye diaboliser bi ñuy jab bëgg diaboliser euh, ñi nga xamante ne ñooy def marche pacifique laay bañ di ko jël di ko def ci turu ci turu Sonko déglu leen bu baax li nga xamante ne la gars yi wax ils sont en train de jouer ak psychologie nit ñi di naan que Sonko ay nitam ñoo génn toj et cetera et cetera non non moi j'étais avec le président euh, Sall ci euh, premier mandat wam ci suuf moi je l'ai parce que j'étais avec Youssou nduur boo ko fekkee ma ci boole Moustapha Niass romb na ma nii ñun dugg nañ ci lacrymogène yi di xeex man ak Mame Sira Mame Sira bu dee mu ngi seetaan dina ko mën a prouver Adja Sy était à mes côtés j'ai la photo ici kon wàccoon naa ci terrain bi xeex Ndaka Ndour mën na ma ko firnde parce que moo naroon fay euh, ñi nga waroon jóge Thiès ma indi leen plus de 10 cas ñu jóge Kaolack ak Tata Ndiouk ñu mobiliser leen pour ñu ñëw finalement sa requête a été refusée kon tey waruñu toog jël nguur après def yeneen air daal changer rouler koo euh, euh, xamante ne yow mais mais mais moi je suis déçue moi je suis déçue